jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lambo te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV mercredi le 12 juillet ci atum 2023 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lambo fekk ci benn affiche am solo Belende Sambala derby Parcelles ak Pikine la day le 5 août ci atum 2023 journal sunu lamb xëy xamal ñu lu ni mel contre ci atum 2023 digganteem ak ki nga xam moo di Cheikh Niang journal sunu lamb bu xëy dellu si ci boobu le combat moom Cheikh Niang moomee day la mu xamle moom moo di dana def kéem tolluwaay day ngir mën a bañ a am li nga xam ne nii moo di defet waaye ba tey journal sunu lamb bu xëy ñëw ci ki nga xam ne nii moom moo la mu xamle moom moo maaman te maa ëpp doole te ki nga xam ne nii moom moo di Jam day du ma moroomam ba si katum sunu lamb journal sunu lamb bu xëy ñëw ci ki nga xam ne nii moom moo Salba nii moom moo di Abou Ndiassé la mu xam day moom moo di ce sera un combat gladiateur journal Sunu ba xëy xamal ñu li mel waaye ba tey ci journal Sunu Lamb bo ñu xëy ñëw ci beneen journée doo xam ne nii kii di Baba Diaw moo taxawal lu ni mel mu dox ci diggante soq ki xam ne ni moom moo di Jackson Senior journal Sunu Lamb ba xëy xamal ñu ne day affiche la boo xam ne ni affiche bu mémorable la journal Sunu Lamb ba xëy xamal ñu li mel waaye ki nga xam ne nii moom moo di Kradje sur terre xam ne nii moom moo ne moom moo assister un vrai combat ba tey journal sunu lamb xëy jël si ki nga xam ne nii moom moo di Ahmed Deme lam ñu xamal ci jaar-jaari Ahmed Deme moom moo di am na lu toll ci treize victoire am li nga xam ne nii am moom moo di treize victoire deux matchs nuls ak li nga xam ne nii moom moo di cinq défaites journal sunu lamb xëy limal ñu lu ni mel ba tey ci xëtum sunu lamb journal sunu lamb xëy ñëw ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa lamb ki nga xam ne nii am moom di président de la république Moussa Macky Sall open press ki xam ne nii am moom moo di Siteu bu Ngor samedi c'est mercredi journal sunu lamb xëy xamal ñu lu ne mel waaye ki xam ne nii moom moo di Malaw a bëgg na day ak combat ba ki xam ne nii moom moo di Issa moom Ama Baldé la mu ca teg ci moo di su Issa Pouye bëggee sax mu yëkkati avance daal di moom Ama Baldé xam ne nii moo di fils xam ne nii moom moo di ñoom ñooñee day ñoo nekkoon ci ginnaaw ki nga xam ne nii moom moo di papa booy jinne gunge woon ko ci arène nationale waaye ki nga xam ne nii moom moo di Kaw Cissé bu Dalifort moom day la mu xam ne moom moo di daal na combat bu neex te saf waaye ba tey journal sunu moo di Boy Malika di bu xëy xamal ñu ne Boy Malika moomee day ma rampe waat ndànk-ndànk petit pour petit waaye ki nga xam ne nii moom moo di Alma croisé ki nga xam ne nii moom moo de Bosco Saw waaye ba tey journal sunu lamb bu xëy ñëwaat ki nga xam moo di nga xam ne nii moom moo di ordinateur numéro 2 le samedi le 22 juillet ci atum 2023 journal sunu lamb ba xëy xamal ba tey xam ne nii moom moo di ca jalgati lamb kañu fay fekk moom moo Ama Baldé moom Ama Baldé la muy xamle moom moo di daal waaw waaw faaw ma daw ci naaj bu tàng bi ngir wàññi garis gi ndax ki may dajeel muy Modou Lo daal moom Modou Lo moomee dafa entraîné te dafa wow kongo te ba tey dafa gaaw yéen ñi koy suivre lamb ko suivre ci télévision bu mag Thiès xombal bambay altu ndangal mag sew kabak lañaar kër daama kër soyer jàll ndulal pata kër Ibra Yaasin sambe ngewel sambe kool dalaak daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta Jolof ñëpp ak yoolu te lambak bool ti yu ñeen ak jàmm sekk daanaan troisième catégorie segul waaw